laata ñuy euh, tàmbali ñi ngi toll woon donc ci tour de table bu njëkk bi euh, Senelec euh, ak Akilee Charles nee na ban dogal njiitu réew mi <laughs> réew mi jël xëy na nga tànn ñu ci yow ay ca bismillah bi ma waaw xam nga der coow Akilee ak Senelec dama tam lu ma métti trop trop trop man yàlla xam ne dafa métti parce que nga jiite réew say morom jiitu la fañu la joon yëpp yàlla suturaal la ba nga am fan ndam loo xam ne Sénégal yëpp ñoo ci kontaan parce président Macky Sall li mu def ci Senelec tey Sénégal yëpp ñoo ci ñoo ci gis seen bopp da nga xëy fii ay ñor ay kii wax na ko léegi ay plan takkal ay plan nangam lu ay groupe nit ñi di xëy sooba ngoon ñu def ay délestage de cinq heures de temps yooyu yëpp jeex ci réew mi léegi Sénégal benn problème mooy dëkk amul courant ñu dolli courant bi mais problème courant amatul ci réew mi demoon nañ ba yóbbu di di di jox pétrole yeneen eh, kii di jox eh, courant yeneen réew yi sa yuru Sénégal ñu dem a dem tey ba nekk fi naan ay benn contrat bu seen ay sénégalais ñu ne nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko dér yi affaire loo xam ne yàq na loo xam ne président Macky Sall yëpp liggéey na ko je pense loolu du li du li gën. deuxièmement bu fekkee ne ñun réew mu ndaw la ñu yor ay sociétés ndaw na ci réew mi di bëgg a jóg te bu dee njuum te gu ñu def dañ leen di rendi kenn du leen jéggal ci dara dañ leen di dañ leen di rendi immédiatement jël ay ay internationaux jox leen doole réew mi kañ su sunu sunu bi di jëm kanam kañ lay avancé donc moi je pense que et puis li Charles wax c'est la vérité. ba fii may wax nii ñun nit ñoo ci nit ñi warutoon nangu ci waxati gisoo benn communiqué officiel venant du ministère de l' énergie gisoo benn communiqué officiel bu génne Sénélec bu gisoo bu génne présidence donc li ñu wax yëpp ay porte presse la lu toll nii lu sérieux lu toll nii ñu naan ay cent quatre vingt milliards dans un pays pauvre comme le Sénégal amul benn communiqué bu wóor bu nit ñi mën a jàpp. dañ naan rek nee nañ nee nañ presse bi moo ñooñu ñooñu équité dañ président dañoo dégg dañoo dégg dañoo dégg je pense que loolu c' est pas sérieux li ñu war a def fi mu ne nii mooy le ministre le mis de l' énergie def point de presse wala directeur de la Sénélec jël e courage ne man naa jóg pour li sama directeur sama ministre def ma dindi ko wa vrai am na ci biir ak dafa bëri en réalité yëf yi c' est pas du affaire intérêt Sénégal yi mais affaire politique la te nag affaire politique parti au pouvoir bu commencé jël ngeen rayante seen biir opposition rek ngeen jëm. man nag nga xam ne parti mu war présidentiel la bëgguma loolu am. bu ma sonné président Macky Sall moo fi nekk bu fi jógee ku nekk ci parti moo fi ko nekk mais ak ak sillage bi ñu dem nii li ñu defoon ci lu baax ñu ngi koy bonal mais bu yàggee lan la ñuy dese ci réew mi dara moi je pense que comme président Macky Sall bu dee lañ bind ci presse bi parce que aw ma communiqué officiel nañ dem waxtaane seen biir te nag ay paaru akili fekkee ni loolu mën naa andi jàmm. que coow lu jeex vraiment jëfandilu ñaaw yi entre suñu biir camarade jeex mais c'est tant mieux. Mm-hmm. mais man at tout cas problème Akili bi sama m'a fait très très mal te vraiment yéene ma woon bilan au président Macky Sall ci Sénélec tey ñu koy ñu koy xajamal ci wax yoo xam ni parce que man dama jàpp bu ñu nee général lan fay fekk lu baax day am dafa fekk loo xam ne jàpp ni baax na mais jarul porte presse nga woote sa conseil d'administration wala say service mais ngeen waxtaan. parce que ba léegi nee nañu xam ni contrat Akilee bi ña ko defoon ñëpp mooy ñu war directeur bi fu ñu nekkoon dañ koy signé est-ce que l'ancien directeur là moom ingénieur la surtout ci ci lépp il a il a demandé des conseils ci directeur yi mu amoon ñoo ñëpp ñu ngi di Sénégal di liggéey ba léegi est-ce que ñooñu ñu Sénégal leen fay Sénégal leen fay ba ñuy jël décision boobu xool nañ intérêt Sénégal est-ce que xool nañ intérêt réew mi pourquoi ñu dellu gën a def volte face. vraiment que dañu bëgg a nax Sénégal yi wax ni ñi xam loo am. ñu wax Sénégal li nga xam ne mooy jëriñu réew mi li nga xam ne mooy jëriñu akki yeeg akki njëriñu Sénégal inter comme ni ko bu waxee intéressé wuñu Sénégal ñun ñoo ko moom ñun waa réew mi ñoo ko moom nañu wax lan moo ñuy jëriñ moo gën parce que nag aussi donc dina ma déranger trop ni ko Malal waxee bu fekkee ne loolu am na man dégg naa jooju te commencé naa siiw que un ancien ministre du PDS moo nekk ci ginnaaw. Mm. indi ay partenaires israéliens pour jox leen mm. compteur. bu dee loolu c'est très grave. c'est Birima li nga wax dafa garaaw kat leeral ko oui ma ni ma ni Birima Birima Birima ñu déglunte Sénégal pour njëriñu Sénégal y a pas problème amul problème mais bu dee dañ ko def pour ay njëriñu monsieur Massamba monsieur Mademba pour ay ay étranger ay là y a problème vraiment y a problème non c'est-à-dire dans nga mm. moi je pense que dans